sëñ Ahmadou Moukhtar di ko ñaanal suñu borom moom tamit yàggal ko mu yéenee liggéey waajuram ñu bis bi nga xamante ni moom la sëriñ Touba Xaadim Rasuul wàcce liggéey ci sëriñ Modou Moustapha indi woon ci dëkk bu sell bi di Touba yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel asalaami point leen koy waxee woon ñu nekk ci waajtaayu màggal Daaru Xudoos ñu am ci waxtaan bu am solo seq ko sëñ du Ndiaye ngeeraan di borom xam-xam di borom diine ñu gën koo ràññee ci ëttu Daara Xuddoos bi moo de Sëriñ Ahmadou Ndiaye bu ñu bëggoon a xam lan moo tax ñu naan màggal Daara Xuddoos ak lan mooy taarix bi. waaw màggal gi moom ki ko woote. Hmm. bi mu koy woote mooy xalifa général de Mawal. Hmm. sëñ Tuubaa itam la ko wooteel. Hmm. kon màggal gi dëkkut ci kër. yoonu murit wépp bokk ki ko doon def nag bi mu koy def. Mhm. booba daaru xuddoos la baase mhm. mooy kër gi tey fi la nekk mhm. kër gi sëñ Tuubaa tudde ko daaru xuddoos li rabbil alamina mursilu ahmada waaye mag ñi bu njëkk màggaluk Tuubaa lañ daan wax màggaluk Tuubaa ndax booba ñaari màggal moo fi nekk booba sax bi ko sëñ Muusaa sos genn màggal doo nga fi nekk muy màggaluk ishrina muharram moom lañ fi jëkk a sos woote ci mbooloo di ko daje di ko fi def ndax 18 safar moom fi lañ ko fekk sëñ bee ko santaaneel boppam waaye anam bii ñu koy defee waxu ko woon mm-hmm. waaw waxoon ni foofu waay nekk rek na ko sant la yàlla mm-hmm. di tàmbalee ci ganaar ba ci giléem lu ci waay am nag ko ci defal ci bis bi mm-hmm. mooy berndeel sa njaboot waaye sëñ Moussa Achirina Muharram sëñ Moussa ko woote ñu daje tuubaa di ko defal sëñ bi te li mu wax mooy juboo naag saa borom ci képp ku fi fanaan ñu jéggal la say bàkkaar wax ni ku fi fanaan boo xëyee ak liir buy door a judd yéen a yem ci set wecc ci ay bàkkaar mm-hmm. loolu moo di màggal gi Touba ñu di ko defee Touba ndax fi la sëriñ bi ne mu wax ni ñi doon gunge sëriñ bi keroog boob yi muy ñëw ku fanaan ak ñoom ci dëkk boo xëyee suñu boroom jéggal la mooy mm-hmm. wax ni sëñ Moussa xam na ni yomal xiyam dana am xam na ni bis penc ba dana taxaw xam na ni suñu borom dana àtte mm-hmm. xam na ni suñu borom dana fay kon li mu wax waxiwut bakkanam waxewut ngir bëgg aw waxewutul ngir bëgg ni dégg leen ma mm-hmm. tey lu ko wér mu wax ko te ku ko weddi itam damay wax ni mm-hmm. yàlla nga weddi mm-hmm. ndax ba suñ borom ne tabaaraka lazi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in xadir la lépp manaam kon yi mënta am rek léegi tëleeg suñ borom ngay daal di indi waaye du tax ki ko wax li mu wax waru koo wax wala màggal gi loolu moo ko indi ginnaaw bi fi sëñ Moussa jóge nag njaboot gi mu fi bàyyi taxawu mel ne sëñ Cheikh nekk ci bopp njaboot gi mhm. loolu tax ñu doon wax màggaluk Daaru Xuddoos mhm. ak màggaluk sëñ Cheikh mhm. ndax taxawaay yi ci sëñ Cheikh taxawaa gannaaw bi njàmbaar gi ci feeñal ak pas-pas bi ak yitte ji moo tax ñu naan màggaluk sëñ Cheikh ak naan màggaluk dara Xuddoos waaye murit bu jàpp ni bokkoo ci amoo fayda wala xamoo li ñuy def bis bi sëñ Tuubaa lañ koy wooteel keneen amu ci wàll sëñ Tuubaa rekk ci am wàll ki ko doon woote bi mu koy woote boobu mooy xalifab sëñ Tuubaa murit yëpp la ci lool di ko def jamono nag lu yàgg soppiku tëri li ñu jamono dem nañ ba màggal yi bari kenn ku ci nekk jàpp ni man ca màggal gee laa bokk bokkuma ca gee yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ni ni doonut la gën te bu ñu delluwaatee ci jataayub Sëñ Tuubaa bi mu mujj def ci fukki fan ak juróom benn ci weeru tamxarit bokk na ci lim tere mag ñi mooy far far farloo mm-hmm. bàyyi leen farfarloo mm-hmm. te alquran wàddu na ci ay yoon laa nu farriqu bayna ahadin minhum mm-hmm. loola la muy tekki rek mooy farfarloo amut yonent bi moo gën ñëpp waaye taxut suñu borom wax jullit ñi ni leen jàpp leen ko moom dong te bàyyi ñu ko jiitoon ci ay yonent mm-hmm. déedéet amana rasul bi ma unsila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la suñu borom moo tax bis bi loolu rek moo ci indi turu daaru xuddoos yi mooy daaru xuddoos lañ ko doon lañ ko doon defe mm. ndax booba Touba yaatuwut mm. diggante bu gàtt la te ki ko doon def fii la baase ginnaaw bu mu fi jógee itam njabootam jël ko téye ko mu doon ndono ñu fonk ko di ko def mm. loolu moo ci indi daaru xuddoos ji moo ci indi turu sëriñ Cheikh bi waaye bis bi sëñ Touba ko moom mm-hmm. moom lañ koy defal te alxuraan rek lañ ciy jàng xasaayit lañ ciy jàng istixfaar lañ ciy def salaatu ala nabi lañ ciy def dajale sunu ñaq toog ko jox ko bindeef yàlla yi lañ ciy def jokk ak bokk lañ ciy def borom xam-xam yi laa biire ñu xamut ñu ñaan yàlla lu ca doonub yool mu def ko ci téeréb jëfub sëñ Tuubaa lii rek lañuy def loolu nag damay jàpp ni warut benn ba ca des mm. warut kilifa bàyyi ga ca des mm. ku jàpp ni bokkoo ci dama ni dof nga wala xamoo li ni def mm. lii rek jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye ci leeral yu am solo yi di màggal gi mu ne màggal sëriñ Tuubaa la am ni xamuñu ko am na ñoo xamante ni sëñ Ahmadou Ndiaye dañoo jël màggal gi rek féetale ko waa Daaru Xudoos liggéey sëñ Modou Moustapha la wala liggéey sëñ Cheikh Amadou Gaïndé Fatma. Euh, loolu euh, damay jàpp ni ñi ko féetale Daaru Xuddoos. Mhm. seenu xam-xam leeru ca. Mhm. jéemuñu caa xam dara. Mhm. jéemuñu caa gëstu dara. te it xeeti farfarloo dugg na ci seen xol. ba tax jéemuñu ko toppatoo. Cheikh Mouhamadul Mountakha mii fi nekkal sëñ Tuubaa gisoo bu tam xarit wi teroo mu dem njaareem. lam ci jublu mooy. jàpp ni ci baatin sëñ baa ngi waaj mu waajandoo ak moom mm-hmm. ànd ak moom gunge ko ñëw Tuuba mm-hmm. bu ñëwee ci kër gi ci jumaa ji lay toog isbu tarixee fanaanee jàng alxuraan ba fajar mm-hmm. waxtu wa sëñ bi doon dugg ci biir këram gu mujj ci biir barab ba la koy fekk kooku dangay xam ne am na ak dégg am na basira bu leer naññ ci ci bis bi te noonu rekk la demee mooy sëriñ bi njaareem la jóge ñëw Tuuba dugg ci këram gu mujj ku ko bëgg a siyaarati foofu nga koy fekk ci ci lu ñu mën a wax xelum doomu aadama mën koo jàpp waaye bis bi moom noonu rekk la demee sëñ Touba moom sëñ Touba lañ koy defal. Mm-hmm. Touba lañ koy defee ki ko santaane it nee na juboo naag boromam ci képp ko fi fanaan suñ boroom jéggal la say bàkkaar. Mm-hmm. ku gëm fanaan si buñ ca àggee ci jéggalum bàkkaar yi te say bàkkaar dañul nag nga mën a wax ak ki la ci wowoon ni la kat dan ma waxoon ni ma nangam ak nangam. Mm-hmm. te boobaa yàlla dana àtte dana fay jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye ñu dikkaat ci ay leeral rek màggal gi ñu bari dañ ne am na ñoo xam ne dañ ne mooy màggal gu mag gi ñi ne mooy màggal gu ndaw gi daan nga ñu ci mën a leeral ñi nga xamante ni xamuñu. loolu itam toujours léeg-léeg nit wax ma ko waaye toujours la ma koy delloowaat question rek mooy lu mu jàppee moom lu mag ak lan la jàppee lu ndaw. ko boo ma leeralee li nga jàppee lu mag. ak li nga jàppee lu ndaw. ma door laa tontu waaye li fekk leerul leerul ci sama bopp. dama ca dama ca mag ñi moom màggal gu njëkk lañ daan wax mm-hmm. ak gu mujj mm-hmm. ndax gii ci tamxarit wi lay doon gii ci safar ji lay doon mm-hmm. mooy bi Cheikh Mouhamadal Fadil ñëwee ni bisub cant boobu yi nga xam ne kenn ku ne da daan beru di ko def nañu leen fii fi moom di ko fi defe si ginnaaw moom mi ngi ci benn barab deetu fi jóg léegi ñëw leen ci moom di ko fi defe loolu moo ko indi ci ñu di ko wootee Touba ci 18 safar ci 1947 mag ñi nag di wax màggal gu njëkk gi ak màggal gu mujj xëy na am na ñuy wax gu ndaw gu mag xëy na dañoo jàpp ni gii mooy ëppi nit ñu tuddee ko gu mag gee mooy gën a néewi nit ñu tuddee ko gu ndaw xëy na ci ñenn ci seen i déggin waaye dal bu ñu bëggee wax dëgg dëgg mooy ñi koy wax lan lañ jàppe gu mag mm-hmm. ak luñ jàppe gu ndaw mm-hmm. su fekkente ni nii jiitu fi la moom lañ jàppe mag 18 safara fi jiitu ndax sëñ bee ko santaane ko def mm-hmm. su fekkente ni nii pour mbooloom dayo mbooloom mi lañ jàpp 18 safar moo ëpp mbooloo ndax ni muy mel loolu itam manees na caat jàpp su fekkee mbirum baatin la nag moom sama moom sama sama dayo àggu ca ci man koo at waaw waaye sëñ bi daal ñaanoon na boromam ma ical xayra ayyaami yow ma alxaaka loolu boo demee ci mawaahibu rahmaan ma nga ca sëñ bi ñaan boromam ni ko na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajeek yow bisu 18 safar daa yoroon aw simiñam dem di róoji ca tool ya ngir fas yéenee liggéey am ca lu tonowu loo xamante ni nii ci bésub asirinu maharam goog yi lañ ko ko fay bis bi ngay róoji ak bis bi nga ŋàbbee sa bon rek dem di fayu ji kenn ku ne xam na bis ba ca dàq ndax sëriñ bi bu ñu xoolee ci mbindam mi ngi wax ni yaa rabbana ilayka asko xaali bil mustafa wa xamsata rijali sayqil xaws xaadiril jeylaani haisul ulami al bastami al mubajjali al humami suma tatayfura ibn isa al aali suma abi xaamid al xazali xaamisum maaruful karqi al jihbis al muqaddam al wali boo demee ba ci biir waaye day wax ne ihdiruhum wa inda mamati xada na nga leen teewal su sama roog yi tàggalikoo ak sama yàpp yaram nañ ko fekk ñooñee ñoo ko gunge ak jundullahi yi mu boole kook Cheikh Mouhamadul Bachir muy doomam boole ci sëñ Mat Lamine Diop Dagana doon aminu sirrihi boole ci sëñ Matar la bokkoon ca mag yi kër ga bokk ci bëkk néeg yi mm. sëriñ bi lool boole ca sëriñ Cheikh Khary Dieng di nijaayu sëñ Basiru bokkoon it ca mag yi kër ga boole ca Muhammadan Attandaxi mm. di boroomub cër bokk ci ñooñ gànnaar ardu saalixiina te amoon wàccuwaay lool ci sëñ bi ñooñi ñoo ko indi Tuubaa fekk fi mag ñi fi sëriñ bi dëloon ñu dëkkoon fi naka jekk ñu woy leen yeble darul moxti ca boroom daru mu ñëw ne ci sëñ Daam Abdurahmaan Lo ca Ndaam yónnee Gede ci sëñ Bàkki Busa yónnee Ndindi ci Seex Muhammadal Faadal mag ñi newoon ci biir dëkk bi sëñ Mandumbe sëñ Mat Lamin Gay Firdaws sëñ Baara Fatim Mbooj sëñ Baara Xari Fall sëñ Ibra Ndaw sëñ Mamour Jaxate ñoo ñëpp ñëw teewe si mbir ma loolu liggéey la boo xamante ni nii liggéey bu sell la ba tax na dangay jàpp ni lépp lu waaye amat ci yoon wi gannaaw matuk liggéey boobu la ndax fii tuuba tollu tey ñu di ko tëkkale ak capital fi mu tollu ci ay habitat fi mu tollu ci surface bu yaatu ak bi loolu dangay jàpp ni dara warulu ko lu dul tëdd gi fi sëñ bi tëdd ndax boobu amut aw yoon climat bi neexut amut am ndox pétrole feeñu fi jamaa feeñu fi jegewul géej kon tëdd gi fi sëñ bi tëdd moo tax mu mel nii mu mel mm-hmm. loola nag taxawaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. suuf si sëñ Tuubaa ko moom ci bàttin waaye saayir si ci nu doxalinu àdduna tërale mm-hmm. sëñ Moussa ko lijjanti ba mu nekk ci turu sëñ bi mu def ko titre foncier loolu itam tax na fu àdduna àddoo ñu ni nañ déglu Tuubaa te lu mu wax loolay jàll naka noonu itam li fi nekk ci ay nit te boo doon seet fonctionnaire yi fi nekk motuñu vingt pour cent wala trente pour cent gën gaa mm-hmm. loolu itam dañuy jàpp ni nekk fi sëñ bi nekk moo tax yooyu yëpp jàpp ni loolu nag cant la mm-hmm. boo xam ne ameel nañ ko taaw yi di Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. lii daal mooy taxawaay yi nga xamante ni taxaw na ko fi ginnaaw bi jumaa ji taxawaay boo xamante ni mënta ñàkk mm-hmm. ndax sëriñ bee ko soxla woon mm-hmm. kon andi na sëriñ bi ci barab bi mu bëggoon ko ko fi indi mm-hmm. wutal na ko aw yoon ci jamono yu jafe yu difficile yoo xamante ni état koy def mu jóg ci volontaire am ànd ak njabootuk sëriñ bi ba indi fi aw yoon yoo xamante ni ni yombut mu yoonu saxaar te doo ko déggaat ci kanam fexe itam ba def fi jullikaay ndax aw yoon woo xamante ni jullikaayu ko tax a jóg loolu booy wër ci histoire amut te lim fere ci yoonu saxaar yi tabax na juma walla ay juma tabax fi jullikaay bu mel nii mu fi tabax loolu itam lu mat a bàyyi xel la fexe itam ba dëkk bi luy tax doomu aadama man fee nekk ci ak jàppandal ca jamonoom yooyu yëpp mu daje woon fi mooy mu amu yoon am ndox am ay tool yuñ mën a liggéey nga xam ni la sëñ bi doon wax ni indi askantu min zuriyati bi waadin xayri si saran inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salaata fajal afidatan min annas tahwa ilayhim loolu moo sos bis yi ndax nit ñi dalaf dalaf ji ñu dëkkee Touba di yaale waxtu wu ne dama ko dikk te yooyu ma waxoon léegi amu fi jëmmi sëñ Touba ji fi tëdd rek tax mm-hmm. te loolu taxawaay bu mag la boo xamante ni kenn mënatu koo defaat sëñ Moussa ko def jeex na la ko suñ borom doon dëll ci ci ak pay yàlla na suñ borom dugal ci biir pay googee barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon ko yàlla fayal yàlla yokk ay leeram ñu yàgg koo màggal yàgg sa kàddu gi mujj waaw kàddu gi de moom mooy nu góorgóorlu ci jaamu yàlla mm-hmm. te teg ko ci sunna mm-hmm. muy jaamoo yàlla ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale sëñ Tuubaa tegoon ci tànkam mm-hmm. nu dollee góor góorlu laxasaayu yokk sunu yitte mm-hmm. ci xañtu bëggu sëñ Tuubaa ñu teg ci suñu tànk mm-hmm. loolu yi daal bokk na ci li nga xamante ni ni moom ñor na ma torop torop fu may yëkkatee kàddu naa ko xaw ndax lii may jàkkaar lool di ko gis di ko dégg muy doxinu nit ñi sore na lool lool lool ak li taxoon sëñ Tuubaa woote te sëñ bi nag ëpp na ko fulla yàlla mi nga xamante ne ni mooy boroom yëf yi tey fay bu ëllëgee tey at tey ëpp nu ko fulla ndax la mu waxoon lépp dara la ci delluwul gannaaw ba ne danaa leen rey ak léegi delluwu ci gannaaw bis bu set ñu leewu soli la neen la ca wax des mu wax ko def ko daa jotagut waaye bu ci àggee noonu la koy defee bëgg nit ñi xam ni sëñ bi moom fowut folowut ant kuy fo lu ko dal jaamu yàlla ak ko teg may yi nag bari na waaye may lañu wax may kon am na ki ko may ki ko may moom moom lépp te mooy subhanahu wa taala te faalun li ma yurit la yàlla moom ba mu ne lu ma neex lay def la way wi jeex la muy def nag yàlla nte na daje ak li nu bëgg waaye ba mu ne lu ma neex lay def rek booba la jar moytu hmm. waaw magum jëm moo xam ne moo ëpp ñëpp doole te kenn du ko yar hmm. bu la nee lu ma neex laay def ku bëgg sa sutura bëgg sa teraanga war nga koo moytu hmm. moo tax ku la ko gën a xam moo la ko gën a ragal dañ delluwaat ci njàngalem sëriñ bi muy li mu bind mag fu mu nekkut ay waxam a ko fa nekkal liñ koy neel ci bitti wala balut waaye li mu bind loola wala ba loolu mag naa bàyyi xel bu baax a baax loolu maa ngi koy dénk sa bopp di ko dénk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguérane ñu ngi lay sant di la gërëm ci temps bi nga xamante ni ak yombal gi nga ñu yombal pour ñu dalal la mais lépp rek ci liggéey bi la ndaxte ñoo bokk lu ñu bëgg ñu jëm ci bis bu mag di màggalu Daaru Xudoos di bis bi nga xamante ni moom la sëriñ Touba Xaadimu Rasul wàcce woon liggéey sëñ Modou Moustapha indi ko fii ci Touba moom la ñuy waajal muy di vingt Muharram atum 1442 mu tombeek le 8 septembre 2020 ñu di ko defee fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci diwaanu Darou Khoudoss kon sëñ Amadou Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan suñu boroom yàggal la fi ba lépp loo yéene liggéeyal sëriñ Touba ak sëñ Modou Moustapha suñu boroom may la ko ak kàttan ak daraja sant nañ bu baax di la gërëm yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel asalaami point net ni leen ko waxee woon rek nekkoon ci waajtaay Magal daar Khoudoss fii ci atu diwaanu Béyti kon dañuy daal di koy yemale kàddu gu nekk ba beneen yoon allah.